donc ñu tàmbalee ah ak bu baax bi comme d'habitude Walf Quotidien euh, Aliou Sow mais pratiquement ñu gis ni que journaux yëpp si euh, Macky Sall tournée bi nga xam ne doon na ko amalan ah, ci week-end bi dans le nord moom la ñu def donc euh, Walf Quotidien def ci xëtam gu njëkk euh, Macky dans le nord une tournée tout couleur c'est-à-dire euh, dem na Podor am na benn gegeer bu nga xam ne amoon na fa entre Aïssata sa Sall Racine Sy et autres donc mu mel ni moom yamale na leen ku nekk ci sa place pour leur dire que on comprend que ci politique ngeen nekk mais faaw ngeen teel seen adversité booloo nekk benn donc wax na leen loolu ca Louga aussi Mamour Diallo fond sur Moustapha Euh, le chef de l'APR évite des zones sensibles mu mel nekk na ay pàcc yu nga xam ne Walf Quotidien andi na ko ci biir journal bi de. Hmm. lii de mooy tous pour Macky. Hmm. mais tout seul avec Macky. Hmm. waaw ça voudrait dire que ñëpp ñi nekk dans Benno Bokk Yaakaar ànd nañ ak Macky Sall. waaye ku si nekk aussi yaa ngi sóor sa bopp sa avenir politique. personnellement. La preuve Macky Sall est parti donc faire le tour après bi mu jógee dans le dans la zone sud-est mi ngi dem dans le nord dans le Fouta mm -hmm. pour jéem a wane les réalisations qu'il a faites là-bas xam mm -hmm. nga aussi Salma lu kenn kenn du ko jeex il peut avoir d'autres tares ou d'autres difficultés par rapport à sa gouvernance mais am na quand même lu Macky Sall di wane mhm. ci réew mi mhm. parce que dafa feeñ doy naag doyul comparativement par rapport à ce qu'il aurait pu faire mhm. ça on peut toujours y réfléchir mhm. et puis l'opposition naturellement loolu mooy liggéeyam mhm. mais c'est d'une évidence que ni le président Macky Sall am na yu mu fi teg parce que man yi ma gis yi ñuy tabax ak le Fouta franchement moi je dis c'est une bonne chose est-ce que doy na est-ce que doyul est-ce que am na loo xam ne waroon na ko si gën a mën a yokk fii waroon na dépasser président Macky yooyu question la ñu war a poser te ci mm. yooyu la ñu war a pour gën ko ñaax mu gën a góorgóorlu et puis opposition bi def véritablement son rôle en constatant véritablement ce qui a été fait par celui euh, justement qui dirige le pays et qui s'appelle Macky Sall. waaye mm-hmm. bu ñu amee ay ñuy def objective nañ ko def ci Sénégal parce que loolu mooy avantage mooy mooy avancer euh, une démocratie. Mm-hmm. wax li xew. lii def na ko wala def ko ñu def une comparaison entre 2012 li fi nekkoon ak li fi nekk léegi. Mm-hmm. honnêtement on n'a pas le temps. moo tax Salma. il me faut beaucoup plus de temps parce que li ma bëgg wax di ko wax toujours dafay dafay dafay gàtt. parce que du ma mën a dugg ci détails yi pour faire des comparaisons parce que xaju fii on a une vingtaine de minutes environ. bu booba bu ma amoon possibilité boobu dina gën a leeral mbir yi wax ce qui a été fait bi Abdoulaye Wade di fi jógee. ak li Macky Sall def en ce moment et est-ce que véritablement doy na wala doyul est-ce que Macky Sall aurait pu faire mieux ça je peux l'expliquer peut-être que dans l'avenir on va y réfléchir parce que quand même li ñuy wax ni dafa dafa yomb mhm. dama ne Macky Sall am na constaté par rapport au travail qu'il a fourni mhm. entre 2012 ak 2019 am na liggéey yu mu fi def mhm. liggéey yooyu dama bëggoon et qu'est-ce qu'il aurait pu faire est-ce faut que je passe à autre chose mais le constat est euh, fait il est en train de faire un boulot assez convenable man que je yu may gis tabax yi ñuy def ak ni ñuy désenclavé Fouta ku xam Fouta zone Fouta ni mu meloon. Mhm. ak léegi wax dëgg yàlla avancement am na. Mhm. et bu doon sama sago qu'il encore remultiplie les efforts aller mhm. chercher les talents ailleurs. même au niveau de l'opposition pour que ñu jàppale ci liggéey mu mel ni tribune grosse révélation de Moustapha Diakhaté mi nga xam ne moo fi nekkoon chef de cabinet du président Sall euh, moom la mu xam ne moo di que euh, première dame bi lee di Marième Faye Sall moom d'accordul pour Macky nekk révélation de taille bu nga xam ne jamono ji euh, journal bi dikkaat na ci ci xëtam gu njëkk. xam nga une fois euh, je ne sais pas si vous en souvenez am na benn émission bu euh, Mariam Faye Sall defoon donc euh, donc donc ci ci ci kii bi nu mu tudd ci. bu mhm. le lendemain ñu titré ko et en avait parlé ici mhm. euh, je vous avais euh, donné un petit peu une idée de ce que je pourrais penser mhm. de la personnalité de cette dame euh, qui est la femme du président Macky Sall li ma gisoon moment boobu je crois que lii nii bés ne dëgg la du ma bett c'est une dame qui n'est pas du jigéen boo xam ne day xëccoo pouvoir. Euh, jour boobu li ma gën a remarqué mooy ndaw si colline bi mu soloon quoi tissu tissu 1600 francs le mètre yi. tissu simplicité bi ak yi demee noonu. Mm. ak ni muy defee euh, benn femme la nii rek bu nekk bu nekk bu bu juddoon ndar nekk ci gi mooy femme yi ngay gis nii chaque jour. Mm. c' une femme simple que je vois. Mm. et j'ai beaucoup apprécié attitude am ak façon yi nitam. melokaanam parce que parce que du du c' est une c' de paillettes et de strass. et ça j'ai relation avec ses amis. bi muy insister nit man lu ma seq ak yow bu doy sama xarit nga. Eh, xam nga jot jotoon na joxe ay explications yu bari. et je ne voudrais pas revenir là-dessus dem leen ngeen xoolaat ko. Euh, il y a quelque temps j'en j'en avais beaucoup parlé mais en même temps c'est juste pour dire que ni ça ne m'étonne pas de cette dame là. d'accord yaa ngi dégg dafa doon nit ku ni je waaye. dafa mel ni nit ku nit ku nit ku nit ku xam ne daal euh, ah, moom euh, kiiwul ah dafa dafa oyob te man boo oyoo fere damay am sa faiblesse ki kii sama problème kay mooy kii ngand ngandu lu man kooku laa mën a kooku mën laa mën a mais ah, euh, ah. jok jokkalanteel moom kooku laa mën a jàkkaar lool mais ku ku simple nii man man da may da may da nga may da nga may kii da nga may terrasser sentimentalement et je vois que c'est une dame Euh, énormément euh, donc donc donc donc le simple mhm. dans ses attudes et dans son comportement bu fekkee ni loolu ñu gisoon ci télé bi noonu la mel dans sa vie de tous les jours mhm. franchement parce que je ne vis pas avec elle mhm. eh ben euh, je vous dirais que bravo madame et ça ne m'étonnerait pas mu wax wax bi mu wax ni ne d'accordul pour un troisième mandat et si c'est Moustapha Diakhaté qui le dit ça veut dire que Moustapha Diakhaté sachez que est très très proche de la dame surtout amal yenn yenn liens yi que que bu fekkee ne dafa ñemee wax loolu ci télévision te mu xam ne c'est un monsieur quand même qui a des secrets d'État mhm. am na fu bari fu mu jaar bu ñemee ubbi wax wax bi mhm. moom Moustapha Diakhaté ça veut dire que je pourrais euh, donc sur parole euh, donc donc donc donc mais aussi Aliou Sow loolu ça veut pas dire que aussi que première dame mais en général yooyu day am moo tax ma ne la gis nga ni da nga koy mën nañ ko juger ci bari mais am na ay détails yoo xam ne du trompé xam nga dama leen ne boo gisee mu fàttali am lu ñu fi jotoon wax. Euh, ma gis comportement ak tooyaam gis nga Salma. Mm-hmm. solo man des fois toogaay rek ak say façon rek dina am une idée. Mm-hmm. xanaa muy doon ay cinq waaye bu ma la toogee ak yow pendant une heure de temps wala ma lay xam ñaar ñetti yoon rek. Mm-hmm. dina am une idée de votre personnalité. Mm-hmm. Euh, te li may juum en du ci bari ci loolu. donc man bi ma xoolee ndaw si analyse ko xool yéreem ba pare euh, euh, sama jabaru rakk bi bi ma toogaloon mu ne ma xoolal tissu bi mu sol man xaw ma de. mu ne ma gis nga tissu bi mu sol nii mais femme de euh, lambda. Mhm. et eh bien moi j'ai beaucoup aimé ça parce que man loolu laa bëgg ci nit ak loo mënti doon ci àdduna fi yàlla kese fi nekk parce que gis nañ fi ñoom Serigne Touba ak ngay takk ay or ak yu demee noonu comme ay madame boobu ma gis nga ndaw soosu ñu gis keroog euh, madame xaw ma lan askia muy takk ay or te kenn xamul fu jëkkëram jëlee xaalis mhm. ñooñu la ñu war a seen seen si si réew mi parce que euh, ku mel nii mënoon a takk ay ori ori or ndax am ndax am na ko mhm. neexoon Euh, euh, première dame mun nañ ne sénégalais ñu bëri ñoo ko apprécier maanaam mmh. réew ñëpp ñëpp mënuñu la bëgg c'est impossible mmh. et moi je peux dire que quatre-vingt-dix pour cent mmh. euh, des populations sénégalaises bëgg nañu kii di première dame parce que bi mu ñëwee au pouvoir muy jëkkër ji bi mu toogee au pouvoir ba tey ji nii souvent da ngay dégg ay nit di ko apprécier di wax nit ku baax la mais aussi conservatrice la dafa doon ka nga xamante ni dafa gëm aada ak cosaan bu Sénégal daf ko dund te daf ko fësal parce que parfois dañuy gis ne y a des chefs d'état seeni soxna Euh, dañuy sol ay yenn yére mais moom dafa préférer garder euh, culture euh, sénégalaise bi mais aussi day dogalante ak population bi parce que parfois da ngay dégg ay nit dañuy nee sax première dame def yu ñëw di ñëw seet gis mhm. population pour xool euh, seen souffrance donc je peux dire que nit ki même su fekkee ne sa àndoo ak moom sa wala bëggoo euh, seen parti politique mais dëgg bu jotee nañ ko waxte dee parce que première dame elle est bien appréciée par la population sénégalaise dans son ménage et que elle surveille son mari là je le dis avec un grand sourire c'est tout à fait normal parce que bu dëgganul gars yi këf jëkkëram c'est saa <laughs> waaw waaw waaw euh, loolu la de man pour man quoi sama xalaat rek laay wax ay observateur foog mu benn jële ca yenn saa yi muy xaw a am fulatu parce que bu amee ful gars yi rendi ko surtout nga xam ne Sénégal moom xale jigéen yi euh, xaaruñu lu diw tekki ba pare ñu doog a ñëw def xam nga xam nga xam nga boo simple gis nga comme moom boo hmm. nit nit da ngay xool lépp ci éducation bi la hmm. ci éducation bi la jëlee simplicité bi yóbbu hmm. ak modestie bi te gis nga boo simple modeste gis nga nguur du la tiital di nga xam moment bi nga xam ne. di nga xam ne que nguu kenn du ko ñedd. man foofu laay xalaatee ci moom de keroog au bout de huit ans de de de de de gouvernance ou de de mhm. waroon na changé. voilà mel neneen bu mais da ngay gis ni vraiment euh, toogaay bi. xam nga la léegi changement bu mhm. sax coach. Mhm. mu mel ni si élection locale yi. a def na ci xëtam gu njëkk ni que lébu yi jamono ji communauté bi dañu booloo ki ñu bëgg mu nekk foofu candidat di Abdoulaye Diouf saan mu mel ni moom la ñu promulgué jamono ji. waaw xam nga Dakar célébé yoon la. Mhm. ñëpp fi la ñuy daje. alors donc euh, euh, euh, lébu yi eh ben ils ne sont pas majoritaires. Mhm. man Sow laa sant. Mhm. jóge ca Nioro Lamde Julde waaye waaye aussi surtout ay dëkk yi si ay tëgg yi siis fii ca yaa ngi dégg mm. euh, euh, Ablaye Abatar Diop yaa ngi may dégg donc donc donc donc yooyu yëpp faisant sa que ñun léegi dañu jaxasoo mm-hmm. amul ay lébu amul ay machin yooyu ñun suñoo nekku ci leex nga dem ba ñooxalam euh, de julle mm-hmm. nga nekk fa nga nekk fa nga nekk nga nekk fa maire donc c'est pas parce que da nga nekk lébu rek que forcément da nga war a alab alab lébu alab lébu mm-hmm. yaa ngi dégg c'est pas parce que da nga nekk da lébu rek mm-hmm. que forcément da war yow war a jiite Dakaru mm-hmm. Dakaru ce n'est pas forcément pour les lébu Dakaru lébu yi moomatuñu ko il faut oser dire la vérité les lébu ne ne sont plus propriétaires de Dakar Dakar Sénégal moo ko moom Dakar ñëpp fii dajee Dakar dañ jënd nga fi kër Dakar am na ñoo xam ne fii la ñu juddoo seen maam yi maam fi am na lébu yoo xam ne ñi ngi nekk ni que les lébous ne sont pas ne sont plus majoritaires parce que nag ils sont victimes de leur générosité ndax dañ daan accueillir nit boo seet demal nga laaj ca grand serigne de Dakar lan moo ko indi góor goo ko santoon Diop lan moo ko indi Ndakaaru ba ñu may ko fi soxna ba def ko fi sëriñ ba tuddee ko grand sëriñ ñoo ñoo topp ni kooku lañ kooku lañ kooku moom lañ toppanteel ba tey yi nii grand sëriñ de Dakar am mhm. waaye Diop boobu jógewul woon Ndakaaru kon xam ngeen ni les lébous comme je le dis souvent, de leur générosité. Il faut qu'ils l'assument jusqu'au bout, sachant qu'on n'a pas choisi Dakar comme capitale du Sénégal pour rien. Sénégal nation Dakar capitale la lépp ñu def ko fii. toutes les richesses sont concentrées sur Dakar. Mhm. et ce n'est pas forcément qu'à cause des Lébou c'est à cause du Sénégal tout entier. Mm -hmm. c'est à cause des Sénégalais dans toute leur entièreté. Mhm. donc il faut oser dire la vérité les Lébou euh, ils peuvent am ñun ci ñun ci penc la ñu bokk man ci su penc la ci suñu penc la sama maam bokk. ñun am nañu ay xàmb. yooyu mi ngi fi donc dama ne dama ne yooyu ça ne veut absolument rien dire te pourtant Sawla Sane ku ma ko waxul doo ko xam. Mm-hmm. donc jaxasoo bi Malal Sow bi muy ñëw Ndakaaru di wër ay tëgay siis. doon lébu ay tëgay siis gis ko mu jekk lool. Mm-hmm. mu ne moom mu ne moom la tipo mm-hmm. kon. Euh, euh, bàyyi bàyyi leen noonu mu jàll. Mm. bu leen waxat ci yooyu yooyu baaxul ce n'est pas forcément une bonne idée Cheikh Tidiane Gomis est en mais je en train d'être très très sérieux dans ce que je dis Cheikh Tidiane wax mais kii buy wax xam nga yaa ngi ni fii gël tàppe awa sol moo ko yoroon mu delloo ko mère mère Fatim mère Fatim lañ ko delloo mère mm. Fatim moom moom la ko awasow bi mu làqoo delloo awasow yaayam mooy ay tëggee siis waaw te ay tëggee siis moom ci boppam Euh, moom moo jur Awa Sow. Hmm? Taata Gueye Ciss jëkkëram mooy Malal Malal Sow moom. taalam la wax nga dëgg ay lébu lañu pire. waaw bu ñu kenn rey ñun ñëpp a ku fi neex mun na nekk maire. nga doon liggéeyal Sénégal rek. mu mel ni si siège boobu la nekk moom aussi euh, mu mel ni yemuñu rek ci Abdoulaye Diouf Sarr parce que nee nañu aussi que Dakar Plateau du ñu nangu aussi keneen diriger ko ku dul euh, Alioune Ndoye. Alioune Ndoye kuy yaayam ndax yaayam waa waa kii la ndax yaayam ndax yaayam ndax yaayam la. Hmm. mu du jaxasoo bi may wax nii rek moo fi ñëwaat ba léegi hmm. mais est-ce que léegi. il faut arrêter un peu non non euh, xam nga lan la euh, euh, bon est-ce que maîtriser nañu électoralu Dakar. xam nga yaa saa aussi xam nga xam nga xam nga loolu la. xam nga tey jii benn benn euh, kii mun na ne euh, diw mooy kii mais est-ce que euh, électoral maanaam gox googu yow maîtriser ya ko aussi. mais Abdoulaye Diouf Sarr mais mais mais c'est quoi que mun il peut être mais pas forcément parce que lébu il peut être serviable pour le peuple de Dakar mais ce n'est pas forcément parce que lébu la rek forcément mm-hmm. il faut prendre un lébu. si un lébu est un Thiounais on le prend pas. mais ça peut être le Pël Fouta aussi qui est Dakar et qui a ses qui qui sont originaires de la Guinée. donc je ne veux pas qu'on qu'on ñu ñu ne ne dañuy def yoon boobu man bëgguma ko. voilà baaxul Podor Podor mais njaago bi na na na dem nekk maire Oréfondé man li si sama yoon. l'essentiel mooy njaago bi eh, liggéey eh, liggéey bu normal. Eh, foo faut arrêter. Euh, Cambérène Mamadou Gomis. waaw mm-hmm. ah, baax na toog leen foofu. ah du nekk dafa maire. Gomis la sant ci waaw ci Cambérène nga xam ne ci lébu yi la foofu. Mm. waaw yow man ah, du Gomis la sant. Euh, kii ah nekk dafa maire. Euh, mais il faut qu'on arrête mais mais mais sama yaay ku ko jur. xanaa du Samba Diaw. fii ci Yoff caaw la sant sama yaay. voilà mu noonu. wala boog ma yeggali. fii ci Yoff sama yaay caw la sax bi daal euh, baaxul. parce que yooyu ay problème lay andi rek nañ la jël parce que da compétent wala nañ la jël. parce que voilà mais pas parce que diw parce que machin la parce que lébu moo war a Dakar mm. non fii Dakar lébu moomatu ko. c'est comme on dit que tukkuleur yi ñoo voté baaxul c'est pas bon c'est pas bon compétence ni quoi. nationalité sénégalaise. maanaam où am nga nationalité sénégalaise du ñu xool aussi ci ban diine nga bokk. Mhm. ci ban xeet nga bokk. pour ñu ne la yow la ñuy fal non non dañuy xool compétence parce que tey boo xoolee Ziguinchor baal ma mhm. dàgguma la mhm. sax. tey boo xoolee Ziguinchor dañu ne bàyyi ñoo fa njëkkoon toog. mais après si la joolee ñëw. xam nga après bàyyi comme li ñu wax seen générosité ñoom aussi après dañoo génn. bien euh, a génn beru léegi ba joolay accaparé foofu mais sécurité. loolu donc loolu day day day delloo réew ginnaaw je pense je me demande sax est-ce que li ñu wax dëgg-dëgg loolu la ñu wax. parce que ah, affaire bi affaire bind aussi dafa doy waar. Mm-hmm. bu fekkee ne loolu maa ngi jégalu parce que on ne sait jamais. Mm-hmm. parce que euh, euh, les lébou veulent veulent un lébou à Dakar est-ce que mm-hmm. c'est c'est vraiment ça qui a été dit. parce que loolu loolu loolu day mais bon bu fekkee ne ça se dit comme ça aussi. non mais dama lay déggal sax xam nga lu tax histoire euh, booy xoolaat histoire ci affaire wu fan. nee na information bu wér te wóor la. waaw bu dee wóor na kon. moo wax loolu bon d'accord bon d'accord waaye dina dina ma jaaxal. Mhm. Euh, lu tax mu jaaxal ma. Mhm. parce que boo di xoolaat le premier euh, gouverneur noir. Mhm. de Dakar c' est pas un lébu. c' est un njaago sama maam la. waaw Joseph Gomis. voilà bravo. non non dëjë. oui mais mais te ñoom ñoo ko fal. mais mais mais ñoom ñoo ko faloon fal. mais Cheikh waaw Matar Ba buy wax. waaw Matar Bala sant. waaw buy wax comme comme séeréer. waaw accent séeréer la yor. waaw waaw waaw léegi kooku foo koy def. waaw kooku da nga naan du warul toog Fatick Fatick waa séeréer la. waaw te pourtant mooy meeru Fatick. voilà donc kenn kenn kenn xamu ko macha allah comme d'habitude bi am na solo ah. que j'ai bien travaillé. l'enfant de Nioro Lam de Diouldé. ouais et de lu mën li muy def. waaw c' vrai ah c' est vrai def. a baax Vitry-sur-Seine Alfortville on vous aime.